yéen kaay gi nee na Macky Sall première dame di Marème Faye Sall ak Mohamed Boun Abdallah Dionne ñoo ko gunge woon niki démb sa Touba yéen a kaay gi di L'As ak Vox Populi nee na Macky Sall dige wan na fa ay dige yu tooy xepp yéen a kaay gi nee na Macky Sall kay dafa tàngalaat dige yi nga xam ne dige woon na ko ca Touba réew mi ko di jee ñu jànge fan a njiit réew mi di Macky Sall daat nay wax Touba na leen hôpitalub 32 milliards bi nga xam ne maa ngi ko fi tabax fii ak juróom benn weer dina pare ma daat leen koy jébbal Macky Sall daat nay wax ne hôpital Matlaboul Fawzayni ak Ndamatou dana danañu ko gën a nag taxawal danañu si gën def ay matériel gën ko daal di yokk Macky Sall nee na maanaam dana tabax Touba ay château d'eau yu mag a mag ay forage yoon wi nga xam ne moo jóge Touba dem ba Mboul Macky Sall nee na dina ko daal di tali daat nay wax waa Touba ne leen ndox mu neex mu doy sëkk dinaa leen ko wutal yéen kaay gi nee na en tout cas li ba de Sall Macky Sall diggéem yi niki démb sa Touba daat nay bëri lool la moom njiitu réew rafet lu na bu baax a baax taxawaay bi nga xam ne xalif général des mourides am na ko lu jëm ci xeex wàllum woppi coronavirus moom Macky Sall daat nay wax màggalu Tuuba gi su dee taalibe yi wàccoon nañ ak li nga xam ne moom la waa kër docteur wax màggal gi mën nañu ko amal si jàmm ak salaam yenekaay gii di l'info ñu fekk fa Alla Dieng mi nekk ci UNAK waa Yeesal daat nay wax ne màggalu Tuuba gi dina dugal ci économie réew mi lu toll ci deux cent cinquante milliards yéen gi di laa Tribune nee na Aïda Diallo ba tey ay mbiram ma ngi gëll goose ci màggalu Tuuba gi ndax Tuuba jamono ci dañu ko daal di wër ndomba yéen kaay gii di Libération dikk ci sûreté urbaine gi nga xam ne ñoo ngi topp def katu ñaawteef yi nga xam ne ñoo rey étudiant bii di Joël Philippe ca université Cheikh Anta Ndakaaru waa sûreté urbaine ñoo ngi wër ñi nga xam ne maanaam ñoo ko rey réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Toussaint Manga mi nga xam ne moo représenté groupe parlementaire liberté ak démocratie ci comité force Covid 19 bi général François Ndiaye jiite moom Toussaint Manga daat nay wax ne Mansour Faye dafa war a rendre compte war mu tekki ndombal tànkam Mansour fay ana nan la ñu ko mën a dénkee àllu réew mi maanaam ñu ko ci ak leeral mu lànk kandaare Guy Marius Sagna nee na Mansour Faye Cissé jamono ji mu lànk kandaare bañ a rendre compte bañ a leeral waaye bis dina ñëw ci bis yi dana leeral ba mu leer nañ alal ji nga xam ne askanu Sénégal daat nañ ko koy jox Guy Marius Sagna bi daa di wax ne Mansour Faye ana nan lañ ko mën a dénkee xaalisu réew mi woo ko ci ak leeral mu lànk kandaare waaye nag ñoo ngi koy xaar li si kanam rawuti bët 24 heures Sud Quotidien L'As Le Quotidien xëy di ñu xamal naa ñu maître Malick mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum justice ci réew mi jamono ji nag ma ngi andil ay ñol ñol Souleymane mi jiita magistrat Sénégal ndax daan ko yóbbu ca kanamu conseil supérieur de la magistrature ne ma sa conseil de discipline ba réew mi quotidien ñu xëy jànge fa ne Alpha Condé tëj na frontière yi dox diggante Sénégal ak Guinée ak yi dox diggante Guinée ak Angola ana lan mooy jubluwaay bi homme d'affaires yi nga xamante ne ñoo tënku ci ak kuréel te dëkk ca Guinée Conakry ñoom nee na ñu Alpha Condé bu tëjee frontière yi diggante Guinée ak Sénégal jubluwaay bi mooy Guinée yi nekk Sénégal dañuy bañ ñu voté ndax xam nañ ne Sénégal Cellou Dalein Diallo moo fi doole yéen a kaay gi di Vox Populi nee na wax ji mooy Alpha ci boppam moo bañ Guinéen yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ak Angola bañ a voté waaye nag ci geneen wet gi daal na ñuy wax ne ki nga xam ne mooy Cellou Dalein Diallo dafa commandé Sénégal lu toll ci quatre cent mille t-shirt war koo yóbbu maanaam ci Guinée loolee la Alpha Condé bëgg gàllankoor yéene kaay gi de Dakar Times xëy ci relance économique ci réewum Sénégal ginnaaw jafe-jafe yi nga xam ne Covid 19 teg na ko réewum Sénégal njiitu réew mi di Macky Sall daal nay taxawal nag plan de relance boo xamante ni waa FMI ñoom daal nañu koy rafetlu ndax lu jëm ci wàllum industrie agriculture énergie ak entreprise yi yooyu yëpp Macky Sall xalaat na si ay jéego yoo xam ne bu ñu ko si tegee lépp mën naa baax yéen kaay gi délibération l'observateur ñu xëy jànge fa ne Diop ISEC ba léegi ni ma ngi am ay jafe-jafe ginnaaw nag weer yu bari yi nga xamante ni def na ko ci kaso bi jabaram jawan di Aïssatou Seydi tan na koy génne appartement bi nga xam ne maanaam fa lu ñu dëkkoon ca Sacré-Cœur ndax Diop ISEC dafa jàppoon ne appartement boobee moomeelam la ñu dem ca daal di gagné niki démbu Diop Iseg génne nañ ko appartement ba moom ak i kaakaam ak i bagaasam jaaw Balde Kayta journal bi nee na testé nañ ko dafa amee coronavirus stade yéen a kaay nee na Alfred Gomis mi nekkoon Dijon jamono ji dem na ren wuutu fa Edouard Mendy mi dem Chelsea Sadio Mané démb toj na match bi doon dox diggante Liverpool ak Arsenal yéen a kaay gi di sunu lamb xëy di samp ab laaj nee na combat Modou Lo Ama Balde bi nga xam ne ba ñu ko na si juróom-ñeent ci ay weer ndax combat boobee dana am li